dafay am ci wàllum koom ak njàngale mi te procès Adji Sarr Ousmane Sonko mbëbët ko nar na rek gën a méttital secteur informel bi naka noonu lekkool yi ñaari at a ngi nii lépp a tembe ndax bile procès loole di lu ñu mun a seetlu te naqari loola ñi imposé acteurs yu nekk ci secteur informel bi élèves yi naka noonu seeni ay waajur dañu duppee feuilleton bu chamboulement bu fonction informelle ak l'école bi nga xamante ne moo ngi wéy te ay fan rek des laata ñuy amal tëjug lekkool yi ak nawet bi nga xamante ne li ci des bëreetul lu soxol fi lu Ziguinchor nag bokk ci gox yi nga xamante ne jamono ji moo ngi dund conséquences yi nga xamante ne mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko jur na ko mu di benn dëkkuwaay bi nga xamante ne jamono ji lépp a taxaw ci wàllum koom opérateur économique yi familiaux yi ak communautaire yi xamatuñu rek fan la ñuy teg seen tànk ngir mun a soqali seen activité professionnelle commerçant yi jaaykat yi jaaykatu produits agricoles yi halieutiques yi ak transporteur jombi nañu lool ñenn ñi nag taxawal seen i activité la ñu def di xaarandi lépp delluwaat nu mu meloon njàng bi te Ziguinchor taxaw ak effet latéraux yi am ci mbirum viol bi nga xamante ne mujjee na rek jur ay menaces de mort ba tax sax ñiy xamle te juk l'école yi ba situation bi ni mel tane ci li xew fii ci Ziguinchor ca Sédhiou wala sax ca Kolda duroog nag li xewoon fii ci dakaar capitale sénégalaise bi di dund ay weer a ngi nii violence yoo xamante ne bëri nañ lool ba tax sax ñu si doon yàq ay bien publics naka noonu privé te lenn waralu ko lu dul procès bi ni mel comme que mu mim réew nag jamono ji taxaw la def ci tendance ralentissement bu secteur informel bi bu dee nag ci anam bu doy waar bi le secteur informel bi di nar a dundee secteur yu commerce bi njaayum lekk bi ak bâtiment travaux dina metti lool ci ñoom secteur u éducation bi mun na rek perturber soxal quantum horaire bi nga xamante ne war nañ ko rek respecter ak organisation composition yu fin d'année yi ak examen ñi nekk ci classe troisième ak terminal yooyu les risques yi nga xamante ne doy na waar jamono ji tegu ci kaw secteur informel bi ak njàng mi gouvernement bi acteur politique yi naka noonu société civile nag war nañ ci rek jël ay pexe naka noonu fësal seeni ay responsabilité procès yi nga xamante ne dëgmal nañ ko jiital xeex ngir préservation wala sax conquête bu nguur gi nekk loo xamante ne day gàllankoor jamono ji bu baax secteur informel bi ak njàng ak njàngale mi nekk ñaari secteurs yi nga xamante ne am nañ solo lool ci koom-koomu mim réew nga xamante ne war nañ ko sàmm bu baax a baax sàmm boobee sax war nañ ko amal itam ci ñaari protagoniste yooyu fii ak ñi xamle verdict bi Adji Sarr naka noonu Ousmane Sonko jàpp nañ ne rek am nañ lii di présomption d'innocence ñoom ñaar ñëpp a yem ak ak yelleef fii ci mim réew léegi nag yoon moo waral rek méngoo ak lii di procédure judiciaire yi wéyal itam li ñu duppee sécurité physique ak morale bu ñoom ñaar ñëpp ci bile mbir nag ngir jàmm ci réew mi justice bi nag nar nañ ko amal ci lii di sérénité ak équité jox gëdd itam askan bi fi yeewoo war nañu rek def suñu kentu lay kàttan ngir sàmm suñu koom-koom tukkee ci secteur informel bi naka nanu ci njàng ak njàngale mili